dund carrément nga nga nga nga sentir ne fii nii gars yi dañ lay boddi parce que sa couleur de peau. ci nga jox benn anecdote. am na am na dem naa ci sax prison ci loo xamante si ni tooñ la xaalis boo xamante si ni man maa ko moomoon téye ko mu am sama xarit boo xamante si ni dafa am luñ ko doon toppee ñu fekk ma mu toog ak man euh, ci fiñ ma fekk xaalis bi ma yor man maa ko moom mais euh, bi ñu agsee dañu ma laaj provenance xaalis bi ma wax leen ko mais. ñoom ñu jël wax boobu noonu dëkkal ko fi ñu ko bëgg a dëkkal bi ma demee ci juge yi mel noonu jox naa leen justifié naa wax naa ba bëgg a dee xaalis boobu dama ko à Paris xaalis boobu dama ko perte mm. c'est des choses yoo xam si da nga koy dund en Europe mm. tu vois que ni li nga nekk noir dëkkoo fa amoon nangam sàngam moo tax ñu ngi koy dund parfois nga dugg ci ay ascenseur dugg nit ñi xool muy nit ku ñuul duñ nangoo dugg parfois ngay dox ci tali nit gis la teggi xajal la ay mbir yoo xam ne day mel ne yow doo doo un être humain comme ñoom. Mm-hmm. bëri na ci mbir yu bëri yoo xamante si tous les jours am na lu lay rappeler que ne dëkkoo ci dëkk bi. Mm-hmm. parfois dañ lay tooñ ci loo xam si nii lii droit mayewu ko mais comme yow tu es isolé un peu euh, avocat d'office ngay jël ak mel noonu. Mm-hmm. le fait nga nekk noir immigré dëkkoo fa boo taxawee juge bi même soo amee dëgg. dañ lay dañ lay paqueté nangu sa xaalis sa xaalis boobu noonu laa ko nangoo noonu laa ko ñàkki. nga purgé mois. d' accord est ce que loolu moo la révolté moo tax nga ñibbi si Sénégal wala bu def musique rap moo tax nga ñibbi si. dama xalaatoon que ni sama heure jot na pour ma ñibbisi parce que maa ngi woon foofu maa ngi woon fii teg fii tànk teg foofu tànk euh, plus ma doon ñëw plus ma doon sentir que ni am na benn utilité bu ma mën a am fii ici au Sénégal. et euh, j'ai commencé à créer aussi benn communauté man entre man ak jeunes yi mooy suivre yu demee noonu et j'ai commencé à bokk ci bépp combat boo xamante si ni aussi sama musique ak ci sama engagement sentiroon naa ko ni war naa ko def et je me vraiment plus utile ici au Sénégal que que que que qu'en France malgré que am naa fa jabar à l'époque ak ñaari doom mais oh. j'avais vraiment ce besoin de retourner ici au Sénégal donc kenn obligé wu ma je senti que ni fii laa gën a sentir épanouissement saa yu ma bëggee tukki ma laaj visa dem ci dëkk yi dellu si waat sama dëkk essayer aussi de d'encadrer ci mouvement bi ma nekk faire avancer le mouvement bi ma nekk mm-hmm. et j'ai réussi à faire de grands pas par rapport ak man bi ma ñëwee li ma fekk ak man fi ma ko yóbbu mm-hmm. donc sama m'a permis aussi de créer benn communauté de servir un peu par rapport ak sama expérience ak fi ma jaar les jeunes yi may déglu à travers ma musique ma leen wan ko ni je suis sur le terrain mm-hmm. je vous accompagne rek ci ay ay et à chaque fois que le besoin euh, s'est ressenti je suis dama dem ci terrain bi dund ko ak ñoom ànd ak ñoom pour euh, vraiment euh, bokk ci en tout cas luy luy avancer sama réew. ñaari doom yooyu ngay wax ñi ngi ak yow toujours. ñu ngi en France. ñu ngi ñëw vacances c'est des ay sénégalais lañ. ay sénégalais bon seen yaay sénégalaise foofu la juddoo mais sénégalaise la. ok d'accord donc ñoom ñaar c'est ok man j'aimerais savoir la relation di Nit Doff ak papaam ak yaayam. waaw <laughs> relation bu doy waar la nag. Mhm. bu doy waar la eh, sama papa sama xarit la woon quoi. Mhm. sama sama xarit la woon. Mhm. et euh, dafa dafa dafa dafa sacrifier toute sa vie pour ñun. jàmbaar la woon quoi toute sa yi liggéey la ak jaamu yàlla xamul xamul dara sama si. sa euh, euh, dama gis booy wax sa papa bon. yaa ngi dégagé benn genre <laughs> vraiment sentiment de. non mënu ma di wax si sama papa day yàq seen émission donc. Hmm. mais lu tax lan lan ma war a loolu non parce que euh, yàlla moo lay tànnal ay waajur euh, ah, c'est fort boo gisee koo xamante si nii aussi hmm. xam nga góor aussi pour mu euh, pour mu topp bakkanam day yomb hmm. boo toll si yenn yi mën yenn yi pour nga topp sa bakkan day yomb c'est pas c'est pas facile nga dëddu lépp pour sa njaboot mu ngi fanaan ci euh, anam yu yu doy waar pour sa njaboot tey doom manqué wuñu dara mm-hmm. moom sa papa toute sa vie c'était pour ses enfants mm-hmm. donc il a tout fait et euh, respect boobu aussi dama koy am si moom moo tax na mm-hmm. le fait que nga dem fekk Europe quand même na la gis gis gis ni muy dundee euh, yaa ngi wax sànq ci benn lo bu ndaw amul jotu noppalu et tout mu am ndax njabootam Euh, dama xam nga bi may gën a nekk ndaw. sama papa da doon wax que ni euh, si doomam yi man maa ko si gën a yërëm. parce que ay 31 décembre wootu bu daan jot ba ñëpp ñëw xale yee cousin yi. Mhm. Euh, damay mer damay wax que ni da ngeen sonal sama papa yéen ñi ñëpp li ngeen laaj dafa bëri. Mhm. donc da wax que ni day wëlbati ko sax ci suuf mu am lu ma jox. parce que da doon sentir que ni dama amoon yërmande quoi si moom. Mhm. mais xale laa woon quoi xaw ma woon impact bi trop mais bi ma màggee aussi. ba gis sacrifice yu ma def yëpp pour ñun ba vie bu ñu am moom amu ko quoi. moom donc i il s'est privé de tout addunaam bi yëpp liggéey la woon quoi. Mm, donc euh, soixante deux soixante dix huit non soixante quinze dans les en tout cas fin soixante dix ba bi muy génn àdduna. Mm. bi mu bàyyee bi mu bàyyee dem euh, Europe yàggul. Mm. donc ça veut dire que ne boobu yëpp da ko daw. bu ñëwee euh, au Sénégal aussi amul temps dara temps wu gis njaboot au fait de de ses mm-hmm. su ñëwee temps bu fi def tuuti seeti mbokk yi xam nga ku bëggoon mbokk la aussi ak diine. Mm-hmm. addunaam bi yëpp jàkk la. Euh, jàng ak jàkk ak euh, ak njabootam quoi. amul woon amul woon beneen bànneexu àdduna bu dul teg njabootam si condition yu baax. donc après dama amoon si moom. fierté quoi. c'est ça ak euh, ak. Euh, euh, je me sentais redevable. Mm-hmm. parce que il s'est trop donné quoi xam nga pour ñun c'est est-ce que am nga chance su gaaw defal ko loo xam ne vraiment mu nekk ci eh, donc <laughs> loolu moo nekk sama fierté mais ah, parce que sama papa dama am ngërëmam daf ma gërëm ba am na yu bëri bu ko noonu wax ndax njaboot boo njabootee doo mën wax ci kaw daal ñëpp di dégg mm-hmm. mais am na yu bëri yu ma wax ci suuf et euh, da doon gis euh, lépp lu ma doon def aussi pour euh, pour am ngërëmam quoi. Mm-hmm. ok ok donc et et. et loolu noonu. Mm-hmm. c'est fort loolu noonu mooy sama force tey parce que sama papa dafa def si man ay valeur quoi. you mm-hmm. know maa ngi jégalu quoi parce que sama papa. mën na di wax si jëlal mouchoir bi jëlal mouchoir bi dangal mouchoir bi. bi tey. waaw c'est fort je je l'écoute bi tey. waaw j'en ai. en euh, ah, bon jël leen kàddu gi ci ah, Moustapha c'est fort c'est parce que. non non en fait moi euh, je sais je je sais pas moi j'en ai les larmes aux yeux parce que. dama koy déglu moom nit dof j'ai l'impression que ni il raconte mon histoire man. parce que euh, man wax maa ngi lay wax ne ñoo bokk ñu dëkk ay ci famille immigré lañ bokk mais man bi may nekk école primaire. Mhm. la sam papa tukki. et quand il te raconte l'histoire c'est moom. Euh, li nit dof di raconter nii moo dal parent yu bari. Mhm. il a fait Côte d'Ivoire Gabon. ak euh, moment yu métti yooyu nekkoon chauffeur taxi Gabon jóge fa dem Italie. et ba fii ma toog di wax ak yow nga xam ne léegi ay doomam ñi ngi ñi ngi liggéey bàyyiwul di dem Europe ba léegi. Mhm. te tous ces sacrifices là il l'a fait pour exactement li ngay wax. pour que ñun ñu am une meilleure vie que moom. Mhm. et je me rappelle une chose qui est très forte et daf ma ko da ko doon wax. Euh, parce que benn moment j'avais choisi d'arrêter les études comme ni ko defee ah comme dama nekk ci ay sama ay nijaay yeeg yëpp ak moom ay tukkikat lañ j'avais envie de faire comme eux mu ne ma mën naa la fayal ci école boo bëgg mais xalaatuma ngay ñëw Italie di ma fekk muy benn beneen bi mu ne ak lu ma leen mënti fayal ci àdduna pour ngeen réussir seen vie su ngeen ko réussir su ngeen ma defarul dara sax man kontaan naa parce que kenn du ma woo di ma boole ak yéen maanaam du ngeen ne ci mbedd mi di yë jéefu jàmbur rek di xeex ak yooyu et ça quand tu racontes cette histoire là man loolu moo ma ci jooyloo parce que j'ai l'impression que ni sama histoire ngay raconté yow et c'est l'histoire de beaucoup de gosses yu dëkk Louga ak yeneen région di ñu seetal actuellement c'est leer na ma ne bari na ñuy seetaan ils ont l'impression que ni li ngay raconté seen papa ngay waxal ñoom parce que on a cette histoire là et, et ça nous forge ñun ñëpp mm-hmm. xam nga si si euh, si góor pour nga topp sa bakkan comme ni nga ko waxee parfois mën na yomb parce que euh, boo amee yenn mën-mën yi mm-hmm. pour nga topp takk tegale ay soxla tegale ay oto tegale ay lii da lay yomb lool et sacrifice bu rëy rëy rëy mooy nga yeew sa bakkan nga dund pour say njaboot mm-hmm. parce que papa période bi muy bi muy bi muy noppalu ak bu muy génn àdduna yàggul donc amul période bu mu toog ne léegi nag dama je profite de la vie mm-hmm. profité de la vie li mu ñu defal lépp moom amu ci amu ci kër ga benn néeg bu dafa amoon néeg ba lay fréquenté ak jàkka ja mm-hmm. donc donc man ba bi may dund mm-hmm. bu may juddoo ba ba sama papa di génn àdduna fekkew ma lu weesu bànneexu njaboot bi mu am quoi fekkew ma lenn loo xam ne lu ne la loo xam ne lu mu dund la quoi mais nag maa ngi maa ngi sant bu baax aussi sama yaay parce que comme relation sam papa ak sam yaay nga ma laaj mm-hmm. man ci famille bi ñëpp dañ ma féetale sam mm-hmm. waaw waaw mais nag sam yaay moom euh, ku bëgg njaboot la aussi ku ñu yar la yarewuñu bakkan euh, ku mën elle très protectrice kenn du laal njabootam ci lu dul dëgg mm-hmm. wala yu ni mel mais nag bu njabootam defee lu dul yoon dafa bokk ci ñooñu nga xam ne du ñu yar seen njaboot ci bakkan mhm. sama yaay doomam bi koo gis naan fii sama yaay ko toj fii sama parce que boo deful li nga war a def moom mhm. gaynde lay doon sa kaw weesoo ku ku bëri yërmande ci doom la ba léegi nii day mën na ko yor ay xale yu ndaw a ndaw suñuy dégg ci ay manifestation wala buñ tukkee ñun ñoo koy jéem a teggil sax mais moom daf koy yanu toujours quoi mhm. euh, su ma waxee sama yaay nag damay wax sama sama sama tante bi nga xam si ni mooy suñu mooy sama euh, aaw papa quoi parce que ñun aussi xàmme wuñ suñu tante ak suñu yaay. moom moo ñu yar. Mm-hmm. Euh, mu nekk ku baax koo xamante si nii aussi si loxoom la ñu yaroo xàmme wuñ ko ak suñu yaay maanaam ñun. bu ñuy wax ci moom sax ci la ñuy ëpp émotion ko bu ñuy wax suñu propre yaay. ñu koy sant yàlla ak suñu papa. parce que aussi bëri na xëy na famille yu amul chance boobu noonu. ñun yàlla may nañu ñu yaroo ci environnement boobu noonu xam ne wuñ ay doomu baay ak yu demee noonu. xëy na loolu bokk na ci di forger sama caractère ak ni ma mel tey quoi. d'accord donc maa leen di jaarale actuellement en tout cas xam naa ne eh, même internautes yi yaa ngi leen di jooyloo parce que ñoom seen bopp sax fi ne nii émission bi ci la mais gis mhm. naa ne euh, Adama gis naa euh, bi muy expliquer fi la toll ba tax daf la sax jooy lool qu'est-ce qui s'est passé en fait. c'est très très franc parce que dafa ne papaam xaritam la. Mm-hmm. man sama papa mooy sama lépp ci àdduna. Mm-hmm. parce que je connais pas ma mère mm. euh, def moom la sam papa dëgg di def ba léegi. c'est mm. ça. Euh, et on ne remercie pas assez nos mm-hmm. du ñu gërëm du ñu gërëm suñuy baay du bari. parce que dañu féete ci ndey mm-hmm. et non papa euh, mérite beaucoup de respect mm-hmm. Mm-hmm. parce que euh, je man sam papa euh, tout sacrifié pour ñun ñu réussir dans la vie euh, euh, parce que man maay taawam euh, on le voyait pas jàngalekat la woon bokk nekk syndicaliste nekkoon homme politique Euh, le régime socialiste nous a séparés de notre père plusieurs fois. Mmh. plusieurs fois. je fais en wolof s'il vous plaît. Euh, régime mu Abdou Diouf ak Senghor daf ñu tàqaleeg suñu papa lu bëri bëri bëri bëri bëri. lu tax parce que da doon def politique. Hmm. doon def syndicalisme bokk PIT. ñu koy affecté à l'intérieur du Sénégal ñu ñu ñuy bàyyi benn place. ok dañ koy affecté milliers d'années scolaires mu daw bàyyi ñu fa ñu tumuraanke. Hmm. te boobu sama yaay boobu suñu yaay mi ngi fa parce que xamuñu woon parce que sama yaay dafa teel a génn àdduna mu takk soxna mhm. bon mu mu mu nekk lu lu diis ci ñun ñu xale boo xamante ni dañuy dem école di jàngi ñuy jël sama papa di ko affecté en milieu d'année scolaire mhm. ñu ñuy tàkkaleeg paa bi muy ñefe pour ñun donc suñu suñu suñu su ma ko déggee je comme ni mu tafaa waxee ah on se voit là-dedans mhm. dañuy ji suñu bopp ci ci li muy wax parce on a l'habitude d'entendre en Sénégal nañu gërëm suñu yaay nañu gërëm suñu yaay mm-hmm. mais nañuy gërëm suñu bàyyi mm-hmm. parce que li ñu doon ak li ñu am mm-hmm. suñu bàyyi ñoo ko def ci ñoom bon man je parle de moi quoi principalement parce que xaw ma suma yaay man lépp lu ma doon ci àdduna sama papa mooy suma référence ci àdduna keneen du suma référence moom mooy suma référence li may dox li may wax li may def lépp moom ci jëmm jooju la donc suñ toogee ci télévision ma am ma am benn bët bu ma doon xool nit ki toog mu andi beneen nit mhm. moom moom jëmm ji nit dof mhm. mu andi beneen nit su mhm. suis vraiment désolé mais su continuer woon tuuti mu musiba parce que parce que euh, suñu papa yi dañu mérité respect loolu nag daf ñu war a jàngal ñun ñun ñi nga xam ne ñun ñooy góor yor yu soxna ci biir kër ñu jéem a taxaw seeni tànk ñoom. dëddu àdduna comme ni ñu ko suñu bàyyi defoon. parce que sama papa dafa dem ba doo door am kër. parce que taluloon jam loon dara taluloon kër loon dara dara dara lu dul doom. dafa dem ba retraité. doog a tabax kër. cest à na ay sacrifice yu bari bari bari ndax doom. donc ñun dañu war a def ay sacrifice yu bari bari bari ndax suñuy tout tànk. parce que comme ni ko Moustapha waxee man sama papa mosul wax ni du weer dee ba mu taxaw ne jox ma lii. li ma di li ma def ci yow def ko sa njaboot. li ma sacrifié ci yow def ko sa njaboot donc nañ ñu ngi koy ñaanal suñu suñu bàppa jooju yàlla xare ko àjjana yu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal papa yi génn àdduna yëpp yàlla xare leen àjjana yu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaanal baay yi fi des yàlla may leen gudd fan ak wër parce que jeune ne pas encore perdu et je ne pense pas je ne me xalaatuma ko sax parce bon ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ñaanal ñaanal waajur yëpp yu góor yi ak yu jigéen ñi gudd fan ak wér bon ñaanal suma yaay parce que man xaw ma ko suma yaay ok benn photom laa yor hmm? suma biir kër xaw ko je ne connais pas

insister pour mm. écouter nit ki parce que day tax nga xam euh, souvent c'est ça qui explique d'ailleurs le bon nit ñi ñu seetaan mm. xam également que ni euh, les les ñoom ñëpp nag mm-hmm. jékki-jékki wuñ rek jóge planète Mars wàcc fii am na fu leen yare ak mm-hmm. Assane Diouf am na fu leen forcé loo xam ne moom moo tax ñu nekk ñu nekk en réalité non man la yéen ñi toog ñëpp kuñ ci tegoon fii mm-hmm. boo moytu musiba ab mais Cheikh Tidiane Gomis je pense que voilà ak ñi ñuy seetaan kuñ fi tegoon fii laaj musiba dafay daal di am Cheikh Tidiane Gomis am euh, na euh, ci euh, siège boobu rek laay des pour gën a xam dégg nga enfance am ak kii man li ma bëggoon xam rek moom mooy maanaam xam nga ñun ñëpp c'est vrai mhm. suñuy papa yi dañoo inculquer ay valeurs mhm. moom laa bëggoon xam nag tey jii moom nit dof yow sa papa yan valeur la la inculquer comme ça pour ma mën a gën a xam mhm. au moins tey jii xam la yow mën la aborder tey jii pour xam yooyu yaay kat yan valeur xam nga waxtaan bi fi ngeen ko dambee mooy bi ngeen tuddee papa yi <laughs> foofu moom day xaw a ko quoi. Euh. mais euh, man ku ma dégg day xam yabam ñaari mots yu ñëw toujours ci sama ci sama wax mooy la fois te loolu noonu ci sama papa laa ko jëlee. Mm-hmm. sama papa addunaam bi yëpp jàmm yàlla la. Euh, sama papa bi ma demee France fekk ko fa bu wàccee. le temps muy agsi ba julli waxtoom yi def weer wasifa yi mu war a def yëpp def ko ba bu muy lekk fi muy teg bopp bi ak fi muy lalaat si jaada bi matul 30 minutes yow da ngay nelaw mu yàgg nga geesu gis ko muy julli toute sa vie c'était ça. Hmm. sama papa dernière fois mu yëkkati loxoom teg ko sama kaw dafa dafa yeewu fajar yee ñu ñun waa kër gi chaque fois bu ñu doon yee dañuy yeewu bàyyi ba mu dem ñu tëddaat. <laughs> loolu laa doon def loolu ñëpp def. yëpp xale daan yeewu bàyyi ba sama papa di waaj a génn ma jiitu ko ci bu génn këram dama néegam dama ko yëg dem jiitu ko ci robinet sëgg ci robinet bi mën na ko jàpp jàppalu ndox bi xeeli xam nga ba mu romb ma dem tëddaat mais dafa dem ba jàkka ja mu mën na daal instant dana ko xoolal jàkka ji mu tourné ji sama frère rek gisuma rek mu tëb mais xaal bi mu agsee ci kër gi ak ci sama ci man nga xamee ko ni kii julli am na fu mu ko toll mm-hmm. mu naaw sama kaw mais boo fekk na maa ngi commencé màgg après mu xëxat sonn rek daal di mer delluwaat Euh, delluwaat jàkka ja mais sonn boobu ma gis ko mu sonn sonn boobu ma gis ko mu sonn ak xëxët boobu ak maraakis yi sax pratiquement daf ko daf ko fàtte ci jàkka yi loolu sama moo def ci man julli ba tey fu ma dem ci àdduna bi yàlla dimbale ne ma ci loolu loolu malgré le rab gars yi dañuy dégg rap bi nii musique la <laughs> mais après bu ñu ci duggee gaa yi nañ bëgg a gën comprendre xam nga préjugé moom fi lañ ko fekk mm-hmm. et si Sénégal dañ koy comprendre xamu ko musique la bu jógee faneen c'est une autre façon de s'habiller de parler donc automatiquement da lay am fu mu la classé mm-hmm. mais bu toogee yow te te mu nekk une personne de bonne foi d'intelligence bu la dégloo day xam que ni ah am na image bu muy dégager mais li mu intéressé mooy li nekk ci xolam ak ci mm-hmm. ci ci ci ki euh, aussi dignité mooy euh, nga nekk ku gëm sa bopp nga nekk ku am yërmande ci jaamu yàlla yi nga nekk ko doylu man sa yooyu yëpp si moom laa ko jàngee ba tax na tey jii nii euh, ku ma xam ci yooyu nga xam mm-hmm. man dara këfuma lu dul ñi ma ñi nga xam ne du ma siggi xool leen mooy nit yi nga xam ne dañu am yar dañu am dañu baax dañu dañu man ñooñu du ma siggi xool leen damay am seen complexe dama leen am euh, euh, ci ñoom mais bu loolu weesoo ñooñu rek ñoo ma mën a jommal mooy nitu diine yi ñi nga xam ne dañoo am yàlla ñii nga xam dañoo am yar man ñooñu ñoo ma mën a impressionné mais li ma nit di impressionné du oto bu rëy du ndomb tànk du yeneen ak yeneen maanaam dignité boobu sama papa daf ko def si man. Mm-hmm. et toute sa vie il a vécu comme sa koñ bi mu dëkkoon euh, ñëpp seen papa la woon ñëpp ko bëggoon ndax il était très retiré moom dara intéressé wu ko sama ci kooyam la nekkoon du déranger kenn du dégg baatam ci kaw fi mu dëkk yooyu yëpp donc man yooyu laa jàng si moom mooy gëm sa bopp nga am dignité nga généreux lépp loo yor nga man ci sama famille am na ñu bëri dañu ma gis si mbedd mi ne bu ma bëggoon xam dañuy jël seen micro ñu dem tàllal seen micro sama famille muy jarbaat muy cousin mm-hmm. muy sœur kuy def commerce kaneen ak kaneen bu bu ñoon joxe sama micro ci sama biir famille ngay doo xam man la kan donc nit dana la gis nag ak mm-hmm. ni ngay gëme ni mm-hmm. ngay doxe ci àdduna sa ngëm-ngëm sa sa xaal ni la yàlla bindee mu def ay étiquette am tappal la ko daal di wax li muy wax si yow mais daal euh, pour tontu euh, grand loolu la yàlla loolu la sama def ci man mooy gëm sam bopp euh, am dignité doylu ci àdduna quoi ak générosité yooyu moom franchement ci sama papa laa ko jële mooy diine ak valeur yooyu mooy wax nii quoi. Mhm. mais comme Moustapha Alisson parce dama gis ne dama gis ne benn kii moo ci bëggoon yokk rek mooy souvent ay ndaanaan ñoo jaar ci plateau bi. Mhm. mais ñoom ñëpp seen rangoñ daanu seen dënd. Mhm. souvent da gis mais. au fond boo toogee ak ñoom xam ne c'est des enfants de cœur boo gisee nit dof ci arñi bi ci musique bi ci hardcore bi ci clash bi muy clash bi muy soog a ñëw jóge France mhm. di clash euh, euh, Fata fii mhm. mais nit dof nga gis ko tey jii mu toog ma ne xale bu ndaw buy wax ci papaam mooy wane ne souvent nit ñi nañu bàyyi souvent yenn façon préjugé ci nit ñi bala nga juger nit ki fexeel ba toog ak moom ba xam ko mhm. euh, maanaam nit ki li muy def en tant que activiste li muy def en tant que journaliste li muy def en tant que métier bi muy bi muy exercer. Mhm. ak bu simmee mbub moomu dugg ñëw ci dugg ci këram kooku masse mbub la kooku bitee la kooku nit dof la. maanaam ñoom différence entre personnage bi ak nit ki ci boppam. ak ak nit ci boppam. d'accord voilà Aliou. Ben, je sais pas. Je... c'est très embêtant. Ah non, on peut avancer, on va pas s'éterniser sur le même sujet. on peut avancer, il y a d'autres questions. li ñuy wax da koo xam il est ému. il a pleuré. Mm. voilà donc il faut que ñu wax loola. Ah. <laughs> nga faire faire revenir Aliou Sow plateau parce que. il était là pendant que je l'entendais. eh bien je me disais que je suis un bon père. Hmm. Parce que finalement, moi aussi, je suis venu au Sénégal pour travailler pour mon pays. Mmh. Et j'ai un peu laissé mes enfants avec ma femme. Mmh. Et euh, bon, maintenant, elles comprennent. Hein? Mhm. Mhm. soxna si Moussa ni ma ay ay bagages. Mhm. Oui, tu... tu laisses les enfants. Voilà, tu laisses tout ça ici, tu as construit tout ça ici pour aller au pays. Et eh ben tes enfants, tu les tout le temps grandir. Tu les vois la moitié de l'année. voilà des fois elle est gentille mais des fois elle me lance des pics et et, et, et je me dis que ni xëy na peut-être que. moo déggee kii papaam lu muy def man est-ce que man. c'est un bon père. Mhm. j'ai compris. Mhm. c'est ça Bon, bah, je sais pas quoi. Je, je, crois que je fais des choses bien pour le pays, non oui. <laughs> ah oui, ah oui, bien sûr. Cette émission-là, defe naa nañ génn. waaw moo dañ génn si sujet boobu c'est bizarre c'est curieux. parce que maam Biram kenn du xam quoi. non après maam Biram on passe à ñu jàll ah maam Biram. Euh, bon euh, xam nga man euh, lu mu expliquer nii ça me pousse un peu à ma ma ma réfléchir par rapport ak. immigration bi de manière générale. c'est pour man l'envers du décor. parce que souvent euh, bu ñuy toog di analyser ñi nga xamante ni ñu ngi à l'extérieur lu ñuy gis rek mooy les milliards yu ñuy sotti Sénégal. Mm-hmm. alors que au-delà de cette économie là il y a des drames familiaux. c'est parce que moom mu ngi nekk góor gisul papaam mais imaginez jigéen ñu bëri ñi nga xamante ni tamit leur mari ñu ngi à l'extérieur. C'est pensée bu ñuy am bu ñu nekkee Sénégal donc c' est vraiment. situation bu bu bu méttee méttee man j'ai des amis yu bëri yoo xamante ñu ngi à l'extérieur dañuy bàyyi seen soxna fii seeni doom. mais des fois damay toog tout à fait ay temps yu yàgg. des fois damay je me demande est-ce que euh, moyen yooyu noonu ñuy ñuy ñuy ñuy daw guddi ak bëccëg pour am ko. ndax seen njaboot yu ñu bàyyi au Sénégal du ñu manqué dara. Mhm. est-ce que à un moment sax jar na ko. Mhm. est-ce que euh, nu mu durati nga toog jege. Mhm. Euh, nu mu durati tes enfants nekk ak ñoom. Euh, ngay. taaba taaba taaba taaba est-ce que nekk loolu. gënul benn instant sax bof ça se discute bien entendu parce que bu ñu nekkoon ci dëkk boo xamante ni lu bëri yomb na xëy na nit ñi du ñu bàyyi fii seen lépp dem à l'extérieur jàpp ne bu ñu nekk foofu ñu ñu fi bàyyi ni du ñu mën a nekk quoi donc mu nekk histoire bu bu xaw a doy waar quoi. ça c'est vrai Moustapha euh, li ñu war a waxtaan ci question d'actualité dafa bëree bëree bëri il faut ñu jéem a avancer uh-huh. mais il faut ñu waxtaanee l'artiste aussi uh-huh. parce que am na benn waa Louga léegi bu may wax ne nit do fecckat la woon avant muy nekk eh, avant muy nekk rapport <laughs> amu leen image yooyu <laughs> fecckat Umar su fekkee am na image bu wutal ñu ko Umar kay rek image bi moom bu ko yor it bayow mu taal ko Charles Charles daal yi ki ko yor xaw fu mu nekk si àdduna may na ko